أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu dañu jublu ci weer wu màgg weer wu tedd weer woo xam ne léppam barke la moo tax dina jaadu balaa weer wi dugg ñu soññ sunu bopp soññu leen fàttalante ci ba ku nekk nga bàyyi ci xel def ci taxawaay moo tax ñu bëgg balaa ramadaan bi ñëw weeru koor bi ñu waxtaane ci ñetti taxawaay yu ab jullit war a taxaw ñetti taxawaay yoo war a taxaw ci biir weer wi muy salaasa waqafaat qabla ramadan ñetti taxawaay yoo war a taxaw balaa weeru koor gi jot bu soobee sunu borom ñetti yëpp dinañ ko jël benn par benn waaye tey bi ñuy jël mooy waqfa amaama rabbik taxaw goo war a taxaw ci sa kanamu borom mbokk yi sahru ramadan fursa azima amaama almuslim li muraajaa wa taxyir weeru koor temps la occasion la bu jullit war a taxaw càmbar ci boppam xoolaat sa bopp weeru koor su ñëwee da nga war a taxaw xoolaat sa bopp nga góorgóorlu bu baax nga càmbar sa bopp nga seetaat sa bopp yow foo toll ci sa kanam sa digganteeg sa borom yow li la yàlla sant ndax yaa ngi ci lim la tere ndax bàyyi nga ko nga jéem a góorgóorlu nga changer nga soppeeku ni ngay changer yére. di sangu guddi ak bëccëg di changer dàll di changer mbaxne di changer muuraay di changer di changer yenn saa yi sax sa kër gi nga changer peinture bi fexeel yow nga changer noonu sa digganteeg sa borom fexeel nga jàng ci naka ngay def ba ragal yàlla naka ngay def ba fuuglu ak yàlla nga yëg ne yàlla mu ngi la sëpp gisam mi ngi tegu ci yow guddeeg bëccëg mi ngi lay gis te yaa ngi def lu ko neexul borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun aaya téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci suratul baqara borom bi daf ñu woo ne ñu ee yéen ñi gëm yàlla borom bi mu ñuy woo ci baatu ngëm lañu woo ngëm an nida al imaani ee yéen ñi gëm la wax waxul ee yéen yéeféer yi waxul ee yéen góor ñi waxul ee yéen jigéen ñi ee yéen mag ñi ee yéen xale yi déedéet lan la yàlla wax ee yéen ñi gëm yàlla ana ñi gëm yàlla ana ñi waaw kon ñun ñëpp dañoo gëm yàlla kan moo ñu woo yàlla lu mu ñuy doyee mu ne dama leen a sant ngeen woor dama farataal ci yéen koor kutiba alaykum siyaam dama leen a sant dama ko def farata su leen neexee su leen naqaree su tàngee bu seddee lépp man maa leen ko sant da ngeen koy def bu leen yaakaar ne yéen rek laa ko santoon am na ñeneen ñu leen fi jiitu woon ñooñu santoon naa leen ñuy woor dafa mel ne dañoo laaj yàlla waaw yow yàlla lu tax ñuy woor mu ne laallakum tattaquuna ndax ngeen mën maa ragal ndax ngeen ragal yàlla kon koor lan la lay may ragal yàlla sooy woor da ngay ragal yàlla mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadisu anas mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam utlubul xayra wa taarradu li nafahaati allahi fa inna lillahi nafahaatun min rahmatih yusibu biha man yasha wasalu llaha an yustara awratikum wasalu llaha an yustara awratikum wa an yuammina rawatikum hadis bi tabrani moo ko solo fil kabir as cheikh nasir al albani wéral na ko fil silsila as saxiixa sunu borom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ut leen utlubul xayra waaye waaye dem leen waaye daw leen daw leen ngeen njëkkante yu baax yi def leen lu baax utlubul xayra sàkku ju leen ko fépp fu ngeen dégg lu baax nga fa daw leen ngeen iti ko mbokk yi tey bu ñu déggoon benn jalu xaalis mi ngi fee ni ñuy def dañuy dañuy daw njëkkante ji lu tax ah benn jalu yàpp bu ñor mi ngi fee benn jalu banaana jalu orange jalu pomme ñépp daw ku nekk yor sa saak ndax ñun dañuy toog na suur nañ lu ñuy def dañuy daw uti yonent bi nee na utlubul xayra dem leen ngeen sàkk ji lu baax fu ngeen ko fekk jël leen mu ne wa taarradu li nafaxaatillah fexe leen ngeen gaaral seen bopp ci yërmande yàlla bi yàlla di wàcce yàlla di wàcce yërmande ci weeru koor fekk yaa ngi toog fee di lekk allahu akbar yaa ngi toog fee di fen yaa ngi toog fee di nar yaa ngi toog fee di jëw yaa ngi toog fële yaa ngi yaa ngi fekk yërmande yàlla mi ngi wàcc yow doo ci am mu ne fa inna lillahi nafahaat min rahmatihi yusibu biha man yasha yàlla day wàcc ay yërmandeem yu dul jeex guddi ak bëccëg ci weer wi kon fexe leen ngeen am ci yërmande boobu di wàcc fexe leen ngeen am ci bu leen tayal góorgóorlu leen mu ne wasalullah an yustara awratikum ñaan leen ci yàlla yàlla daal leen di sàngal seen awra mu muural leen ko yal na yàlla sàngal ñu sunu awra ci weer wi wa an yu ammina rawatikum yàlla dalal sunu xel ci weer wi yàlla muur ñu we sutura ci weer wi waaye yàlla dalal sunu xel ci weer wi yonent bi loolu la wax ñu ñaan mu ne lisa looloo tax mbokk jullit yi kaana nekkoon na asalafu ridwanullahi alayhim salaf suñu waxee salaf mooy ñan mooy ñu njëkk ña mag ña ñu baax ñi yonent ya astaghfirullah sahaaba ya aboubacar umar usman ali ak aimma imam malik salaf yi ñooñu ñooy salaf mu ne ñooñu ñoom yaduuna allaha sittata ashhur an yuballigahum ramadan ñoom dañ doon ñaan yàlla juróom benn weer la ñuy toog di ñaan yàlla ay waay yàlla naa fekk weeru koor waay weer wu nekk ñuy ñaan yàlla juróom benn weer balaa ramadaan ñëw ñuy ñaan yàlla pour yàlla may leen ñu fekke weeru koor lu tax ndax ñoom dañoo xam njëriñ bi ci nekk xam nga ñun tey jii suñu yàlla mayoon kàttan ne ñu am ngeen kàttan pour arrière weer yi ngeen arrière ko ci ginnaaw ñun est ce que dañ koy arrière wala dañ koy avancé dañ koy arrière lu tax ndax bëgguñu woor bëgguñu bëgguñu xiif tey jii kenn su mënoon ñëw ñu ne ko yow da ngaa bëgg woor wala bëggoo woor lu muy wax bugguma woor waaye gis nga kii léegi léegi naan man bàyyi fàllaa du ma woor léegi léegi rek léegi léegi rek waa ji moom mu ngi arrière weer wi naan bàyyi fàllaa bugguma woor léegi léegi la ko wax. mbokk yi sa salafu saalih ñoom dañ doon ñaan yàlla yal na leen yàlla may nu fekkee. weeru koor an yuballigahum ramadaan suma yaduunahu après ñu koy woo. ñu koy ñaan sittata ashhur hatta yataqabbala minhum dañ koy ñaan bu ñu wooree ba pare maanaam ñaan nañ juróom benn weer pour yàlla may leen ñu fekke weeru koor après bu ñu wooree ba pare dañuy ñaanaat juróom benn weer pour yàlla nangul leen koor gi kon ñoom ñaari ñaan lañ amoon ñaari ñaan yi ban ak ban la yow yàlla may ma ma fekke weeru koor ma woor ko su wooree ba pare mu ñaanaat yow yàlla yàlla nga ma may yàlla nga ma nangul koor gi ma doon def qaala yaxya ibnu abil kasir kaana min duaihim allahumma sallimni ila ramadan bokkoon na ci seeni ñaan yaxya ibnu abi kathir di ñu ko nettali nee na gaa yi doon nañ ñaan ne yow yàlla jàmmal ma ci weeru koor wa sallim lii ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala yàlla may ma jàmm ci weeru koor yàlla jàmmal ma ci weer wi yow yàlla muccal ma ci te nangul ma ko min huna ayuha al ahbab fa innahu yajibu ala al muslim qabla hulil shahri ramadan al karim wa qabla iqbali ayami al itra wa layalihi al mubarak an yaqifa waqfa i'tiraf wa nadam wa inaba mbokk yi dina war képp kuy jullit balaa weeru koor taxaw nga taxaw bu baax a baax a baax balaa weeru koor ñëw ci ay bisam yu neex ci ay guddeem yu barkeel yu sell yu set nga taxaw taxaw aji wéccu taxaw ku reconnaître ku nangu ka ci kanamu boroomam ne moom de dëgg-dëgg li ko yàlla sant def ñun ñëpp dañoo war a taxaw taxawaayu aji nangu taxawaayu aji réccu taxawaayu taxawaayu aji réccu ñu réccu bu baax ñu yëg ne ñun ndeke li ñu yàlla sant nekkuñ ci sunu kanam borom mbokk yi réccu boobu ñuy réccu dañuy nangu ne ñun kat dañoo def ay bàkkaar yu dul jeex kon dañoo war a delluwaat xool sunuy ayib sunuy sikk-sikk sunuy manqué-manqué ñu bari lu ñuy ñaan ñaan bi rabbana la tuaxizna in nasina aw axtana rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuxammilna ma la taqata lana bih waafu anna waxfir lana warxamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin ey yow sunu borom waay waay waay waay ñu ngi lay ñaan bul ñu jàppe bu ñu juumee wala nu fàtte yow yàlla bul ñu jàppe bu nu fàttee wala ñu juum yow yàlla bul ñu teñ bul ñu teg ay coono yoo xam ne tegoon nga ko gaa yi démb yow yàlla bul ñu teg loo xam ne àttanunu ko yow yàlla jéggal ñu yërëm ñu ndax yow yàlla yaay sunu kilifa yaay ki méngoo sunu mbir yow yàlla ñoo ngi lay ñaan ngay may ñu ndam ci kaw yéeféer yi mu ne wa haadihi li alwaqfa amaam allah taxaw bii ñu war a taxaw ci sunu kanamu boroom taxaw la boo xam ne hiya waqfatu xayaa dañoo war a rus dañoo war a rus tey jii kenn ci yéen koo xam ne dañ koy indi ci daara ji nekkoon na mokkal alquran mu def fi ñaar fukki at mokkalul ba papaam yi su taxawee ci kanamu papaam day kontaan day rus suñ la mayee bii nga tukki dem Amérique nit ñi toog di la xaar sa yaay jaay takkaayam sa papa jaay oto am ñu jaay kër gi nga dem tukki nga ñëwaat loo indi nga ni sokola da ngay rus wala da ngay kontaan kon nag ñun tamit war na noo rus war na noo rus laan mu nañu waaw dama leen santoon ngeen jaamu ma de ana lu ngeen ñu ñëpp ñu ne sundum def kon xal suñu kanam borom rek xaw rus ndax koo xam ne dangaa manqueel li la yàlla santoon dañ laa yónni woon demal uti wecc nga réeral xaalis bi soo ñëwee taxaw ci kanamu kilifa da ngay rus wala da ngay kontaan ñun tamit dañoo war a taxaw rus ci suñu kanamu borom ah xayaa am gàcc yëg na ñun li ñu yàlla sant ndeke guddeeg bi ci ñu fexe ñu sori bàkkaar yi ñu masul nee na yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na istaxiyu min allahi xaqal xaya yéen lu leen tere rus leen yàlla waay waay waay rus leen yàlla dëgg-dëggi rus qaala ñu ne qulna ya rasulallah sahaaba yi ne ñëw yonent inna nastahi wa ñoo ngi sant qaala yonent bi lee leen laysa zaaka lool de walakin al istihya min allah haqa al haya an tahfaza ar rasa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tuzakkiru al mawt wal bila wa man arada al akhira taraka zinata ad dunya wa man fa'ala zalika faqad istahya min allah haqa al haya waay waay rus leen yàlla dëgg dëgg rus saxaaba yi ne du loolu rus yàlla dëgg dëgg mooy nga téye bopp bi téye bopp bi ak la nekk ca bopp bi lan moo nekk ci bopp bi bët ak gémmiñ kon da ngaa war a téye bët bu mu xool lu xaraam nga téye gémmiñ bu mu lekk lu xaraam nga téye nopp bu mu dégg lu xaraam nga téye bakkan bu mu fóon lu xaraam loolu la ñuy téye bopp téye leen bopp bi ak li nekk ci bopp bi téye leen nopp yi mu déglu lu araam téye leen bët yi mu xool lu araam téye leen bakkan bi mu fóon lu araam téye leen gémmiñ bi mu wax wala mu lekk lu araam noonu la ñuy rusee yàlla da ngaa bëgg rus yàlla téyel sa bopp ak li nekk ci bopp bi gardeel nopp yi fàttal nopp yi fatt ko baaraam bu mu ci dugg bu mu ko dégg gémmiñ gi tëj ko bu mu wax wala mu lekk lu araam bët yi téye leen bu ñu xool lu araam noonu la ñuy rusee yàlla dëgg dëgg rus mu ne wal mat na wa maa xawaa nga téye biir bi ak la mu ëmb biir bi biir bi fan la nekk biir bi ak li ko wër téyel biir bi ak li ko wër bul lekk lu araam waaye téyel sa awra bi bul ko dugal lu araam téye ko seen biir bi ba mu dëgër takkal caaya ji ñoo xam ne dëgër dëgër caaya ji waaw dëgër mu ngo ceinture bi na dëgër tëjal baraket bi fermeture bi tëj ko mu dëgër génne lu dul farata noonu la ñuy xaraam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam wa man araada zinata dunya képp ku bëgg taaru àdduna bu fekkee taaru àdduna dong dong tax nga jóg ne fa man faala zalika képp ku def lii hmm? mu ne da ngay fàttaliku dee wal tas wal tas mawta del fàttaliku dee wal bila natt yi nekk ci dee képp koo xam ne da nga am alaxira wa man araada al axira taraka zinata dunya ku bëgg alaxira da ngay bàyyi taaru àdduna alaxira ku bëgg da ngay bàyyi taaru lan mooy taaru àdduna kër yi rafet yeeg lekk yi neex yeeg yére yi rafet